àdduna bépp bàyyi ko xel rawatina ak lu làmb kooku mooy Jackson Jackson vainqueur naaru ko naaru sokaas barki démb gis ngeen bi ñu bëree arène nationale ndam lu rëy bi mu am ci kaw naaru sokaas loolu yëpp dinañ ci waxtaan ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wel waxtaan bi Jackson maa lay nuyu di la siyaar. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. Hmm. waaw kii naa ñu sant yàlla. Hmm. di jull si yéen di sant suñu ñaari waajur. Hmm. di ñaanal suma yaay bu mu tëdd yàlla na a fu mu jógee. amiin yaa di ñaanal père père Bakar Mère Awa. Hmm. yàlla na la yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin te wér. amiin amiin ak capitaine Mame Cheikh. Hmm. suma kot suma ànd Pa Omar. ndeysaan. di nuyu Mo waa Serigne Firdawsi. Hmm. maa ngi bëgg ñëpp di nuyu di nuyu waa Wassare Lamb. boo seddee nii. xaw a yambar yambar lu te yambaroo émission bi du leex Jackson lu mu demee nii wala ndax ma leex. <laughs> laa mel si si lépp. nga mel keroog bi ngay bëree naaru sokaas ci digg géew. mel nii laa wane tamit. <laughs> lii nga wane. Eh, làmb jékki-jékki. Jackson bëreeg Pape mm. am ci moom ndam. dóor ko mu daanu. mu nekk ndam loo xamante ne ñu bari ci làmb dañ la gënoon bàyyi xel. nga jëlaat naaru sokaas lan moo la jëlee ci Pape Ndoye dugal la ci naaru sokaas. lan mooy lu may wax chaque jour rek làmb moom boo si door a dugg da ngay mhm. boo demee ba kanam bëri ñu la jiitu si làmb. Mhm. boo demee rek ba génn làmb ñu may sarak sens. Mhm. nañ suñu morom Pape Ndoye may ñu sens mu mën si ñu daan ko naaru sokaas tamit daan ko. Eh, loolu moo ñu dugal si làmb loolu ko yëg rek romb suñu morom. Pape Ndoye bi ngay bëre moom dafa laa may sens. Pape Ndoye waaw moom moo ma jiitu mhm. a bëree si làmp. Mhm. Mhm, dafa euh, bi ngay bëree Pape Ndoye ci ñaata victoire nga jógee wala ñaata combat nga amoon moment boobu. bi ngay bëree Pape Ndoye maa ngi woon sama neuf victoire xam nga huit daal. nga jël Pape Ndoye am ci moom ndam. ñëpp ne Mara Sogas mag la xale nga. nga jël ko bi nga koy jël da nga jël noix de stockage parce que dafa nooy nga jàpp ne yaa ko mën jël ko wala da nga am problème adversaire moo tax nga jël noix de stockage. non problème na si tamit quoi. yow mi waaw parce que ma soo si PAM mu të. mais noix de stockage tamit jëluma ko di pour daa nooy noix de stockage benn mbir bu ñu ko dangereux si làmb si làmb mhm. parce que daan ku ne daan ñu ko ëpp doole daan na ñu ma daax bëre boo gisee man su ma gisee mbër yi d'habitude bu ñu ñëwee toog ku nekk danaan dama am problème mu adversaire adversaire bu ñu ma koy wutal jafe na te mbër yi man xam naa ni képp kuy takk ngemb du ragal. Mhm. léegi kon mbër am na ay mbër yu du jeex mbër bu doon cent pour cent quatre-vingt-dix pour cent yëpp yàlla am mbër ak mbër ak ñu gunge ak nekk dëggal sa bopp bokkul. Mhm. nan la gunge nag mafia bi gunge leen nii xam lu da nga wax ko scientifique lu da nga wax mais mbër dëgg-dëgg si biir géew bi la. bu mhm. arbitre siffle yokk sa adversaire man loolu foofu laa jàppee mbër mais du ay wër émission yi di wax toog si plateau yi di wax signature nga wax lu la saf. Mhm. Euh, sa combat ak euh, Naaru Sokaas. ñëw na euh, bëri ngeen mais actuellement ñi ñi ñi la doon wax ñuy daw nga ni comme ni nga ko mën a waxee ñuy daw bu ñu ñëwaatoon ni bu la ko proposé di nga leen jël pour bëri ñëw. waaw ça dépend rek suñu suñu ma war a bëre rek am na ñoo xam ne suñu ma proposé woon instant ñoom mais am na ñoo xam ne ma proposé woon instant bi may bëre ñoom. ñeen nañu lu tax doo bëre ñoom da nga leen a ragal wala da leen a raw. dama jàpp ne dama leen raw parce que làmb boo daanoo wàcc boo daanoo yéeg. loolu laa de daanu toog daan dem. daan avancé làmb sax ko loolooy làmb de. làmb daal daan daal moo la jig. Hmm. ak noo mënti mel ak ak noo toll boo daanoo tamit ay léegi nga ñëwoon ñu ci sa combat. sa diggante ak Naaru Sokaas ngeen ñëw dugg ñëw stade gis nañ keroog ni nga def yëngal stade bi ba mu yëngu macha allah géej waaye tund waalo gi ñëpp nga mobiliser leen indi leen. Euh, bi arbitre sifflé wala avant arbitre di sifflé ngay xool Narou Sogas lan nga doon xalaat sa diggante moom avant ngeen di jëflante. waaw xalaatuma si woon dara loolu daan tey. nga ni di ko daan. bien sûr man jàpp naa Narou Sogas bu ko yàlla dimbalul dëgg dëgg dëgg. manuma daan jour boobu quoi. maa doon ndimbal ñaan yàlla dëgg la wala am. pour yàlla dëgg xam nga yàlla moom man chaque jour damay man chaque jour làmb su may ñëw dama koy wax sama supporter. Mhm. kenn du ma yedd si entraînement kenn du ma dàq si biir géew kenn du ma kële kële si biir géew. Mhm. mais ndam ak defet moom yàlla moo ko yor quoi. dëgg la mais lu ma war lépp dinaa ko def. Mhm. man ma leen assuré dinaa ndam man ma leen nii leen indil defet mais lu war si biir géew dinaa ko lu war si entraînement sama supporter du si lu war si yëngal dama koy def tamit ñëwal ma ci combat bi di ngeen bëree yee ñaar. waaw dama bëree man moom arbitre soufflé. Hmm. bon daa expérience expérience la ma la ma naroon sama biir bëree. Hmm. arbitre soufflé ma dox si koom dox dox dox mu arrière gauche droite ma topp ko ma dóor hmm. dal na ma mais saful. dal na si koom. mu mu def ko comme comme noonu def. ma daggaat leetoo bi. si laa accéléré nag sës ko ma ko ko si suuf. bu hmm. jëlee suuf daa mën a bëree. Hmm. daa yu cax bi fàkk ma. comme ni ma su ma tegoo sama benn loxo hmm. ma bàyyi jël bi bàyyi sama loxo bi. jàpp si ngeen bi si ginnaaw. si laa dama ko bëggoon fàkk mu tëdd ma fàkk mu dëgër jàpp sama téere fii. si laa jóg nag dóor ko trois épirgines. mu sigi ma mbot ka mu jéggi mbot ma daa daw ko seize trésorier bi laa topp action boobu si laa ko daane. làmb ji gis nañ li nga ci indi ci mystique. Hmm. nee nga door na la sax door bi saful. Hmm. Euh, jàpp nga ni mystique jàpp na Naaru Sokaas parce que Naaru Sokaas hmm. ñu bari ci làmb keroog xàmmee ko. mystique jàpp na ko ci làmb ji. nag gisuñu loolu nag. <laughs> ah Jackson bàyyi sa yi ngay def. donc gisuma mystique jàpp jàppoo mystique ci ci Naaru ma ko de gisuma moom lay dépendre mais gëwuma jàpp na la. man mystique jàpp ma. ah mais Naaru Sokaas ñu bari ci làmb xaar nañ ko ba sonn mais gisuñu mu xeex gisuñu mu bëre vraiment wane na ni am na lu des ci moom parce que résisté na sax ci action yu njëkk yi nga ko def. mais ñu bari jàpp nañ ne booy bi da koo laal de waaw waalo génn nañ seen loxo de. wax <laughs> laal ñun moom chaque jour rek suñu dem gëm nañu demee suñuy entraînement. Hmm. waaw côté boobu moom xam naa ne ñun xamuñu suñu bëre sax. Hmm. am njaay daal xam naa moom moo si gën a kii. Hmm. moom moo si gën a xam moom mooy lijjanti ji. kon am am téye na loxo bi wala bu téye tànk bi de. waaw loolu yëpp na nekk. ah waaw baax na ba mu sotti. <laughs> mais am daal moom moo yor lépp. Mhm. am baaba daal gën. ñoom dañ naa ma takkal ma takk rek tekki la ma tekki. Mhm. mais xam nga fu ñu koy euh, foo jëm. waaw ku nekk bëggante avancé. ba muy mhm. bëri naaru sokaas ñëpp dañ ma mën naaru sokaas. maa ngi door a bëri combat am si mi combat bi ma génn. ndax yaa nekkoon favori ci làmb. maa nekkoon favori ci làmb te xam naa man naa soo ma daan tey lu ma yàqal. Mhm. benn combat laa mos bëri si làmb am si pression mais mosuma am pression si làmb lu làmb bi ne ma génn. Mhm. nekkul pression ay kii mën na maa daan ak nangam nangam. Mhm. mais liñ la yéen moo des man chaque jour damay bàyyi xel suñu borom. dëgg la. maanaam nit ki noo mel rek suñu borom mën na loon boppam. te chaque jour ñu ne la yaa man dafa garaaw. dëgg la yu mel noonu chaque jour suñu borom dafa si wane boppam. loolu laa doon bàyyi xel. comprendre jóge naa si naa si waat alhamdulilah yàlla ma may ndam mënoon na fan nga jëm laa wax. waaw fu ma jëm nii comme ni ma waxoon rek man su ma amee dugub moteur baax na su ma amee coin baax na su ma amee baax na. <laughs> waaw très bien. c'est bien ça. xam ne man xam nga du ma. Jackson waaw du waxoon. Jackson double moteur doomu rëbës bi mer la fanaanoo lépp loolu lépp garaaw démb dëkk naa nga xam ma. dëkk nga ko ndeysaan mu ma ne moom nga kuul quoi da nga yaru moo tax mën a wax ndeysaan ah, waaw da ngaa yaru nit moom nit da nga mën a doon ndeysaan nit mën la wax lu baax te nga toog di nga xalab ak yooyu xam nga loolu la loo xam naa wàññi sa wàññi sa moral bi wàññi sa moral bi xam nga wax dëgg yàlla waaw manuma manuma man <laughs> ma wax loolu ba pare ma xëy di nga surtout aussi ma yaay nga kii di ko attaqué lam boole daal lu ñu bëree bëgg ngaa bëri moom daal mooy sa bëri moom waaw Quench bëgg naa bëri moom mais Quench fi mu toll nii raw na la ci làmb waaw nit ñi mooy lu may wax rek lam moom da ngay bëral ñu raw dafaa nga bëral ñoo raw. Franc loo ko yebbee. Franc waaw dama xam ne maa dàq bëre moo tax ma yeb ko. non Franc moom xam naa ne bu gisee sax nga koy laaj dina ne noo kii def maa yeb. Franc ni laaj la la gerte la la gerte day moroom la gerte moroom Franc dama ngi koy laaj. sans caaxaan bu ñu la indiloon avance Franc léegi teg ci table. nga jël Franc bu ñu génnoon mu taxaw ma simee mu simee ma bëre moom léegi jarul avance sax ak alxuraan keneen <laughs> am naa da nga yaakaar damay ne fi di waxandu. di waxandu. ah Fara dégg naa xeex mun na bëre. waaw <laughs> ñun xam naa mën nañu. am hmm. amateuru làmb yi komba yi gën a bëgg. Hmm. yi ñuy gën di wax. Hmm. mooy sa diggante ak euh, nu mu tuddati général bu Faas. nee nañ bëgg nañ combat boobu. ndax da duggoon Faas daan Pape Ndoye. ñu bëgg laa jox général nga xam ne dootoo duggati Fass pare nga pour bëre général. Fass moom Fass moom pare gu ma hmm. pare gu ma Fass kan nga fa bëgg. boo amul boo amul boo amul général kan nga fa bëgg. a bëre bëre nag. li man. Fass kay bëri na bëgguma sax ñuy <laughs> ñuy xeen xeenaat di kii neel diw rek. tuddal ñaar wala ñett rek. léegi promoteur yi moom suba. dina la kaay. dinañ ñëw incha allah. jërëjëf mooy tudd. Coly fay numéro 2. gars yi mm-hmm. neen dañoo bëgg nga duggaat Langsar mos nga faa dugg de. waaw Langsar dugg naa fa ñaari yoon. bëre faa kan. fa Tigre Tigre Junior. daan ko. daan ko bëre laa daan ko. léegi Coly Faye numéro 2 moo bëgg a taxaw. pour freiner la dootoo dugg Langsar. <laughs> loolu yaa ko wax de man dégg mu wax hmm. mm-hmm. xoolante woo ci. xool nañ gisante nañ pro amateur yëpp wax ko ne combat bi combat bu neex de. dem ñëpp loolu wax nañ ko ñëpp mu déggoo man dégg naa ko dégg na ko ñoo bokkoon soriandoo ci mu toog. bu la promoteur seet si nga jël avance ko li fay. ah man ñëpp laa fi nekkal lu tax duma ko jël. Jamaïcain boole ko ci journée général Malika euh, déggal ma naan général Malika boole ko ci Goro Sok ak Fils de Balla combat bu neex ngeen bëre spécial bi loolu neex na. man daal maa ngi fekk làmb gars ku ñu woowee bu ñu déggoo am. waaw hmm. ah, ba pare mooy loolu noonu ñu bëri. monsieur am daal bu ñu waxtaan ak moom bu ak laxaat. Hmm. laxaat mooy sama manager. am nga jabar. am na koy bëgganteel. naa gel waaw am naa koy bëgganteel. ñaata gel. benn. <laughs> waxal tur naa jaroo. <laughs> dalay lax leer laa wax dalay lax de. naka loo tur waxal tur bi. naa jaroo waxal sant bi. <laughs> <laughs> dalay nax de bu demee ku mu dem danaan la yow lay waxal dalay <laughs> jaajëfal baax kontaan la am naa benn bu bëgg la <laughs> doxaanuma ay nit la yaa bëgg si laa ah, ah, dëgg la eh, du ma malaaka tamit ah, ñi am loolu baax na eh. su ma lay wax balaa wax séeri kan Jackson séeri kan non jarul bàyyi ma séeri ma lay jaajëfal bu baax kontaan laa vraiment ci déplacement bi nga ñëw fii maa lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Ah, ah. Hmm. waaw maa lay jëfal yow tamit. Hmm. waaw xam nga tamit ñu ne yéen benn lan hmm. que ay ay ndaw nañ ay jeunesse nañ ñu ñoo mën jàppalante. dëgg la. man lu may dem si xam nga daal lu may dem ay médias yi bërëb wala. dëgg la kii ma daanee pare toog sama coin. ndeysaan dëgg la. am dafa ma woo ba mere ma sax. lamb ba mu fa dugg ay vingt heures laa dugg. ndeysaan nar woon dem lamb ba. man jàpp naa lu ma mën am si làmba du ay wax moom koy may wala du média moom koy may. Mhm. maa ngi koy liggéey sama bopp. dëgg la mais boo gisee nga woo ma ñëw fii xam nga. Mhm. moo xam ne ndaw bu bëgg liggéey nga. dëgg la te nangoo sonn si nit. Mhm. nit moom boo nekkee ndaw bëgg liggéey dañuy jàppale suñu biir. ndeysaan yéen ñoo leen mën a jàppale mais yéen yéen ñu mën a jàppale. dëgg la. Eh, moo tax xam rek maa ngi lay remercier di remercier waa Wassare Lamb. di bëgg sama gaay yëpp. di bëgg ñoom am Baba Laye Diop. ñoom Sadibou xam nga waa Boune yëpp maa ngi bëgg ñëpp. sama gaay yi dawal moto ñoom Issa. di bëgg waalo waalo yëpp di bëgg waa Géejawaay di hmm. bëgg waa Boune waa Tournal Boune hmm. moom hmm. maa ngi bëgg waa Rue 15 mbedd Fass apprenti car yëpp maa ngi bëgg ñëpp di bëgg waa Géejawaay waalo maa ngi waa Ñij waa Ndimb waa Góolam waa Malla waa Joxor waa Kër Momar waa Dagana waa Témé waa Resator waa Ndeer maa ngi bëgg waalo waa lépp di bëgg sama dëkk Pape Malla waa Ñij tamit surtout waa Tës maa ngi bëgg waalo waalo ñu ñëw di gën a jàppale seen doom xam mhm. di béy sama kursi moom ànd ak Pa Omar di ziar xam nga Père per mbay Mbaye mhm. géej waaye mbooloo dafa bokk si làmb suñu géej bi bien vrai ay tuutàngaa nekk mais ñoo ngi ñëw mhm. nañ si jàpp bu baax ñoom président Pa Fall waaye ñoo ngi woo ñëpp ñëw ñu jàppale ñu de combat pare nañ pour lépp comprendre nga maa ngi béy ñëpp sama rakk Moussa ñoom Ahmada ñoom Dougay Issa Pape Thiam xam nga. Mm-hmm. waa Cambérène xam nga seen fay waa jàmm gani Mor bi booy Mbës. Mm-hmm. di bëgg Kara Disney bu baax Ameth Niang xam nga. Mm-hmm. maa ngi bëgg ñëpp. ziar ñëpp Boy Kolobane lam mu jàpp lu mu jàpp. sama waalo waalo bi. maa ngi koy bu baax di ziar ñëpp di bëgg journaliste yu ndaw yëpp ñooy sama xarit. ndeysaan <laughs> ndaw yëpp ñooy sa xarit mu nekk xale boo xamante ne vraiment. làmb am nañ ci moom yaakaar mu nekk xale boo xam ne champion la. ndaanaan la ci làmb Jackson bu duggee mu neex su bëree mu neex su bàkkoo mu neex mu nekk xale boo xamante ni vraiment xale bu yaru la ni muy bëree ñu bari daf leen a yéem boo ko gisee bu dul làmb dangay gis ndaysaan yar gi teggin gi ñàkk mën a wax gi ndaysaan du wax du du def dara ñu koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal ay mbokkam ak képp koo xamante ne yaakaar na ni mën naa doon champion ci làmb